الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين mbokk jullit yi noo ngi sant yàlla subhaanahu wa taala di seede ne amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul moom yàlla subhaanahu wa taala di ñaanal yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam yal na jàmmi yàlla ak i xéewalam ak barkeem yàgg a wàcc ci kawam moom ak saabaam ak ña toppoon ci ginnaawam ci ak rafetal ba ila yawmi diin di dellu si ci jotaay yi ñu amoon ci téere bu mag bi di thalaathatil usul di ñetti cosaan yu mag yi nga xam ne cheikhul islaam muhammad ibn abdul wahab taala dajale na ko ci téere bi ci jotaay bi weesu ñi ngi woon ci ñaareelu cosaan bi nga xam ne mooy xam gi jullit bi di xam diineem ñu waxoon ne diine jooje di lislaam mi ngi toll ci ñetti martaba ñetti wàccuwaay la martaba ba sa jiitu di al islaam ñaareelu martaba bi di al imaan ñetteelu martaba bi di al ñu jeexaloon martaba bu njëkk ba di al islaam tey ñu war a dugg ci ñaareelu martaba bi ci maratibi diin di al imaan loola tax boroom téere bi wax ni almartabatu thaniya al iman wa huwa bid'un wa sab'una shu'ba fa a'laaha qawlu laa ilaha illa allah wa adnaaha imaatatu al adaa an at-tariq wal xayaau shu'batun min al iman loolu yi moo di bindu tey bi comme niñ ko waxee muy ñaareelu martaba ci maratibi diin di ñaareelu wàccuwaay yi nga xam ne diine lislaam ñetti wàccuwaay yee la am gannaaw al dañuy wax al imaan al ci làmmiñu arab buñ ko waxee mooy at tasdiq li bi di firi ci wàllu làmmiñu arab buñ ne al imaan at tasdiq loole la koy dëggal la borom bi subhanahu wa taala wax si e, mbokki yusufa ya wama anta bi muminin lana ba ñu waxee seen baay yow day doo ñu gëm ci lii ñu la wax ne yusufa tilluwa lekk na ko wama anta bi muminin lana ay bi musaddiqin lana maanaam doo ñu dëggal ci lii ñu la wax mënoo ñoo dëggal ci liñ la wax ci ne yuusufa euh, tilluwaaka waaye loolee ci wàllu làmmiñu arab la waaye nag ngëm yàlla liñ ci jublu ci li nga xam ne mooy sharia ci diiney lislaam lan lañ jublu ne moom mooy ngëm yàlla comme ni ko ahlu sunna wal jamaa di waxee qawlun bil lisaan wa atiqaadun bil qalb wa amalun bil jawaarih yaziidu bit taaca wa yanqusu bil maasiya loolu moo di difinition di xamle leeral lan mooy ngëm yàlla ci diine lan lañ jublu ci ngëm yàlla la sa jiitu mooy ngëm yàlla lu làmmiñ bi di wax la walla lu jiitu loolu ñu leeral ne da gis ne définir bi ñu ko définir ci diine eh, moo gën a tënku maanaam si wàllu làmmiñu arab ndax si wàllu làmmiñu arab dañ ne alimaan iman li mooy dëggal waaye dëggal googu du doy si wàllu diine loo tax ñu ne fii taarif biñ ko taarif mooy xaqiqa sharciya la al iman si taarif ahlu sunna bi ñu wax léegi loole la ñuy tuddee xaqiqa sharciya ndax définition ba jëlee nañ ko si xaqiqa lugawiya yóbbu ko nag si alxaqiqa sharciya sa dëgg dëgg dëgg si sharia la lañ jublu sa al iman muy baati yi ñu leen limal la sa jiitu mooy qawlun bil lisaan benn mënta si définir iman di ñëw ba jiitu mooy ngëm yàlla faw dafay nekk loo xam ne làmmiñ bi daf koy wax làmmiñ bi dafay reconnaître di wax lii nga xam ne moom mooy ngëm yàlla di ko fësal di ko wax si làmmiñ nit ki nga xam ne dane du ko wax eh, nangu la wax ngëm yàlla du wax laa ilaha illa allah par exemple kookee gëmut kadalika ki nga xam ne lan ne sa xol ba dafay juyoog li muy wax si làmmiñam bu boobaa it ngëm nga gëmul ndax ñooñe la ñuy tuddee naafeq yi nga xam ne yàlla subhanahu wa wax na si ñoom yaquluuna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim dañuy wax ci seeni làmmiñ loo xam ne newul ci seen xol kon ngëm yàlla faw làmmiñ bi daf koy wax waaye na làmmiñ bi di wax dafa war a dëppoo ak la ne sa xol ba comme euh, baat ba sa tegu atiqaadum bil qalb maanaam li làmmiñ bi di wax fawu xol bi daf koy fas fawu xol bi daf koy fas kadalika noonee xol bi di ko fas cër yi dañ koy jëf cër yi dañ koy jëf loolu mënta ñàkk ci ngëm yàlla kon ni ko làmmiñ bi di fase ni ko làmmiñ bi di waxee xol bi di ko fase noonee la ko cër yi di jëfee mënuñoo imagine ngëm yàlla goo xam ne boroomam du jëf boroomam du jëf maanaam la ko ngëm yàlla di warlul ngir mu def ko du ko def la ko ngëm yàlla di tere pour mu bàyyi ko du ko bàyyi maanaam koo xam ne du jëf loole ngëm yàlla newu fa comme ne ko Cheikh Saleh xafidahu llahu taala di waxee mu ne wala yakfi alqawlu bil lisaan wal ictiqaadu bil qalb bal la budda min al amali bil jawaarixi ayda mu ne la budda min adaai al wa tajannubil muharramaat faww nit ki di joxe farata waaye di bàyyi yu araam yi fa yafcalu taacaat wa yatajannabu almuharramaat kullu hada min al loole lépp si ngëm yàlla la bokk kon ñett si ngëm yàlla la bokk si noonee ñu ko définire da gis ne jëf yi kon si ngëm yàlla la bokk waaye jëf yooyee dees koy séddale ñaar mu ne ko Cheikh Saleh xafidahu llahu taala di waxee ba léegi daf si am jëf yoo xam ne si dëgg-dëgg ngëm yàlla la bokk mënta ñàkk bu fa jógee rekk ngëm yàlla newatu fa waaye am na si jëf yi jëf si yoo xam ne dañ koy tuddee mukammilaatu lil imaan ay jëf la yoo xam ne dafa mo dafay mottali lii di matuk ngëm yàlla ngëm yàlla mat gam war a mat jëf yooyee ñooy ñëw di ko mottali noonu it la ngëm yàlla amee ay pàcc ngëm yàlla dafa ami ponk ami pàcc dinañ ci ñëw si ak yaatal si ponki ngam yàlla benn par benn euh, ak tegtalam waaye it ngëm yàlla dafa ami pàcc du jenn jëmm dafa ami pàcc am ay branche comme ni ko boroom téere bi waxee fii yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wax ko ci xadis bu wér al imaanu bid'un wa sab'una shu'ba comme dinañ ko nañ ko leerale ci kanam incha allah waaye ñu xam ne rek lii di ngëm yàlla dangay gis ci texte yi yenn saa yi ci alxuraan ak sunna baatub al imaan ñu tudd ko boole kook baatub al islaam yenn saay ñu tudd benn ba duñu tudd beneen ba maanaam yenn saa yi ñu boole leen al islaam ak al imaan waaye yenn saa yi ñu tudd benn ba rek maa ñu tudd islaam kese te duñu tudd al yenn saay ñu tudd al kese duñu tudd al islaam bu boobaa bu fekkee dañ leen a boole tudd bu fekkee dañ leen a boole tudd bu boobaa al li muy firi mooy jëf yi nëbbu yi al iman saa su ne jëf yi nëbbu yi lay firi nga xam ne xol baa koy fas al di firi jëf yi feeñ yi al li muy firi bu boobaa mooy jëf yi feeñ yi waaye bu fekkee benn ba rek lañ tudd tudd ñu beneen ba ñaar yépp lay ëmb loo tax baat yi di al islaam ak al iman dafa bokk si baat yi nga xam ne boroom xam-xam yi dañ ciy wax ne buñ ci tuddee benn day yóbbaale beneen ba waaye buñ leen tuddee ñoom ñaar ñépp buñ leen boolee tudd benn ba dafay firi lii beneen ba di firi lële baat yooyu bari na ci diine comme al islaam hmm? eh, bu boobaa li muy firi wax naa la ne mooy jëf yi feeñ yi al di firi jëf yu nëbb yi waaye buñ ne alislaam kese dafay yóbbaale al imaan si boo koy firi buñ ne al kese dafa yóbbaale al islaam kon loolu lu jar a xam la si ñaari baat yi di ñaari martaba si diine di martabal islaam te waxoon nañ ko xam ne eh, jaaroon nañ si ay ponkam kadalika martaba bii di al imaan kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu waxee al imaanu bid'un wa sab'una shu'ba aw bid'un wa sittuna shu'ba borom téere bi indi ko fii Yonent bi sallallahu wa sallam ne lii di ngëm yàlla juróom benn fukki pàcc la ak nàngam walla juróom ñaar fukki pàcc ak nàngam loolee si ngay déggee nekkoon kon al imaan ay pàcc la comme niñ ko waxee léegi dafa ami ponk ami pàcc bida buñ ko waxee ci baatu arab mooy eh, lim bi nekk diggante ñett ba juróom-ñeent ñett ba juróom arab daf koy tuddee bida maanaam fukk boo ci tegee ñett ba juróom-ñeent danaan bidaata achar fukk ak nàngam xadis bi nag yonente bi sallallahu alayhi ne lii di ngam yàlla juróom benn fukki pàcc la ak nàngam wala juróom-ñaar fukki pàcc ak nangam bi maanaa juróom-ñaar fukki pàcc ak ñett jëm juróom-ñaar fukki pàcc ak juróom-ñeent kon loolee mooy pàcc ngëm yàlla mu leeral ne la sa gën a kawe alaaha li gën a kawe ci al imaan di ngëm yàlla mooy laa ilaha illa baatu bu màgg boobee di baatu laa ilaha illa ne amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul moom yàlla subhanahu wa taala looli mooy li gën a màgg si ngëm yàlla mooy njombaxtal ga mooy bopp al te mooy ponk ba jiitu dinañ ko leeral incha allah si ponk yi ñëw ak seeni tegtal te mooy li dugal nit ki si diine di baat bu màgg boobee di laa ilaha illa allah mu ne wa adnaaha la gën a suufee si ngëm yàlla ngëm yàlla ay pàcc la daf si am ay pàcc yu kawe kawe kawe kawe am pàcc yu nekk si digg doomu am na pàcc yu suufe si ak ngëm yàlla waaye bokk na si ngëm yàlla si pàcc yi gën suufe imaatatul ada an tariq nga fekk luy lore si aw yoon nga jële ko fa soril ko si yoon wa balaa muy lor jaami yàlla yi loole si ngëm yàlla la bokk ki nga xam ne dafa gis luy lore ci yoon ba mu jëlee ko ci yoon ba ngir mu bañ a yor lor jaam yàlla yi dara taxul mu def ko lu dul yàlla subhanahu wa taala loolee ci ngëm yàlla la bokk dont ne maanaam comme ni nga xamee ne jël luy lore di ko def ci yoon lu xaraam la nit ki di jël ak lor di ko def ci fi jaam yàlla yi di jaar loolee dafa araam moo xam lu mu mënti doon si ak lor ndox mu salte moo jële sa biir kër di ko tuur si yoon mbaa mbalit di ko def si yoon walla lépp luy lore nga koy teg ci yoonu jullit ñi loole dafa araam dindi gi ko nit ki di dind nag jële ko foofee loole moom ci ngëm yàlla la bokk ci ngëm yàlla la bokk mu teg sa ne wal xayaa shu'batun min al iman lii di kersa pàcc la si ngëm yàlla kon si ngay gisee ne ndekete ngëm yàlla ay pàcc la même di am kersa te kersa buñ ko waxee si diine mooy jikko joo xam ne dafa yóbbe boroomam muy def lépp lu rafet waaye di wottu di sori lu ñaaw moom bëggul def lenn lu ñaaw maanaam am na kersa si def lu ñaaw waaye lépp lu rafet ak lu baax loolee lay def jikko joojee di jikko ju ju ju ju baax jikko ju rafet si ngëm yàlla la bokk yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne wal xayaau shubatun min al kon ci ngay déggee ne kon ngëm yàlla ay pàcc la bal yegg na si juróom-ñaar fukki pàcc wala juróom-benn fukki pàcc ak nangam comme ni ko xadiis bi waxee ñu gis ne kon jëf yooyee yépp ci ngëm yàlla la bokk loolu taxoon boroom xam-xam yi taalif si téere tuddee ko shu'abul iman maanaam pàcc ngëm yàlla yi di di si ay jëf yoo xam ne si ngëm yàlla la bokk ak seeni tektal si alquran ak sunna comme euh, alxaafid albayhaqi rahimahullahu taala téeram bu mag boobee di euh, aljaami li shu'abul iman kon lii euh, xadis bi yenente bi sallallahu si tegtal yi nga xam ne boroom xam-xam yi yi définir ngëm yàlla moom la ñuy tegtaloo ndax boo settantalee xadis bi dafa jiital ne alaaha la ilaha illa allah ne ngëm yàlla ay pàcc la la sa gën a kawe mooy wax ji nit ki di wax laa ilaha illa kon boobaa wax si làmmiñ dugg na boroom xam-xam ba ñuy définir ne qawlum bil lisaan loolee dugg na foofu ñu teg sene adnaaha imaatatul ada ani tariq bokk na li gën a suufe si ngam yàlla jël luy lore si yoon soril ko yoon wa loolee jëf la kon amalun bil jawaarix dugg na si ngam yàlla waaye wax ji mu wax ne wal xayaau min al lii di am kersa si ngëm yàlla la bokk te kersa nekk jikko jikko ji nekk si xolu boroomam booba ictiqaadum bil qalb daal dina dugg kon definiir gi ñu définir ngëm yàlla ne dafay nekk loo xam ne làmmiñ da koy wax xol di ko fas cër yi di ko jëf ay tegtal yu bare bare bari ci alquran ak sunna ñëw nañ di ko tegtale bokk na si eh, xadiis bii nii kon nga dégg ne wax nañ si ngëm yàlla li ñu tudd ay pàcc ak i ponk ngëm yàlla dafa ami ponk waaye dafa ami pàcc kon lan mooy différence diggante ponk ya ak pàcc ya maanaam lan mooy wuutale ne ñu ne lii si ponk ngëm yàlla la bokk wala lii si pàcc ngëm yàlla si ay xaaji ngëm yàlla la bokk ne ko Cheikh Saleh xafidahu llahu taala di waxee nee na amma shu'ab fa innaha mukammilaat la jiitu mooy eh, al arkaan al arkaan laa budda minha fa ida zaala waaxidun minha zaala al iman ponk ya moom mënta ñàkk comme nañ ko waxe woon ci ponk lislaam ponk ponk mooy li nga xam ne ci la mbir mi di taxaw bu fa jógee rek ngëm yàlla amatu fa benn ci ponk ngëm yàlla yi mënu faa jóge benn ponk bu sa boroomam weddi kookee gëmatul yàlla ngëmum ngëm amatu fa waaye lii di ashuab mu ne fa inna mukammilaat pàcc ya moom dafay ñëw di mottali ngëm yàlla googe ak di ko matal duñ ne bu bàyyee pàcc ci pàcc ngëm yàlla yi rek génn na ci diine waaye pàcc yooyee dafa ami façon am na ci pàcc yoo xam ne dañ koy tuddee waajibaat li kamaalil imaan am na ci yoo xam ne mustahabaat la maanaam ay yenn yi ay wareef la ci ngëm yàlla dafay mottal li nga xam ne mooy ngëm yàlla di ay wareef waaye am na si yoo xam ne mustahabaat li kamaalil iman dafay yu ñu sopp la dafay mottali ngëm yàlla waaye lu ñu sopp la bàyyi nga ko jullit bi du bàyyi du ko génn si diine waaye sopp nañ ci moom muy góorgóorlu si loolu ndax dafay mottali ngëm yàlla am kon bu fekkee julli bi dafa bàyyi lenn si wareef yi nga xam ne ngëm yàlla daf koy waral ci moom ngir mu def ko wala mu def lenn ci araam yi nga xam ne ngëm yàlla daf ko koy tere ngir mu def ko duñu tëb tëb rek génn ko ci diine déedéet loolee du ko génn ci diine comme li nga xamee ne mooy pas-pas ci ahlu sunna wal waaye bàyyi googu muy bàyyi wareef gi ko ngëm yàlla di warlul ci kawam wala def lu araam li ko ngëm yàlla di tere dafay wàññi ngëmam daf koy wàññi daf koy def mu nekk ku gën topp li ñu tuddee faasiq jëf ji muy jëf lu xaraam lu ko ngëm yàlla di tere wala bàyyi gi muy bàyyi wareef woo xam ne ngëm yàlla digal na ko ko ngir mu def ko daf koy def mu génn topp bu boobaa faasiq la ku génn topp la buñ ci doon joxe misaal jullit bi bu naanee sàngara mbaamu njaaloo yooye ci bakkaar yu mag yi la bokk bakkaar bu mag la def kenn du ko kéefarloo kenn du ne kii yéefar la maanaam def na bakkaar bu mag yéefar la déedéet kenn du ko génne si ak ngëm yàlla waaye faasiq la ku génn topp la bu fekkee bàkkaar boobee dafay waral si moom li ñuy tuddee xadd loo xam mooy bàkkaar yi yàlla subhanahu wa taala ne ku def nangam nañ ko def nangam Ah, wareef la si eh, imaamu jullit ñi mu taxawal li nga xam ne mooy xadd si kawam waaye loolee du ko génne si si diine dafay wàññi ngëmam nag maanaam def bàkkaar yooyee dafay wàññi li nga xam ne moom mooy ngëmam kadalika bàyyi mu bàyyi wareef yi nga xam ne ngëm yàlla daf koy war warlul si moom dafay wàññi ak ngëmam loole mooy deminu ahlu sunna wal jamaa wuute nag ñi nga xam ne ñooy xawaarij yi ak mu'tazila yi alxawaarij kuréel la ak kuréel la kadalika al mu'tazila ñaari kuréel lañ yoo xam ne dañuy weddiloo jaam bi maanaam jullit bi bu defee bàkkaar bu mag dañ koy génn si diine weddiloo ko yàlla kéefarloo ko waliyaadu billah ñoo ñoo ñii ñoo di xawaarij yi ak al mu'tazila loolu dafa bokk ci seen pas-pas xawaarij euh, yi dañ koy génn ci diine ba pare saxloo ko ci sawara dàkk alxawaarij dañ koy génn ci diine saxloo ko ci sawara ne kookay dootul génn sawara waliyaadu billah amal al dañ koy génne ci diine waaye dañuy wax ne duggul ci ak kéefër fii ci àdduna maanaam génn ci diine waaye duggul ci ak kéefër loolee ñuy tuddee manzila baynal manzilatayni dafay nekk ci wàccuwaay woo xam ne diggante ngëm yàlla ak kéefër la ñoom nag ñoom ñoo xam wàccu waay woo mooy mooy mooy ban foofee lañu wuteeg si xawaarij ji waaye ñoom ñoom ak xawaarij yi ñépp dëppoo nañ ne ëllëg yowmal xiyaama day sax sawara dàkk waliyaadu billah maanaam ki def bàkkaar bu mag si ñoom ki naan sàngara mbaa nga njaaloo waliyaadu billah dañ lay saxloo sawara dàkk te loolee wuuteeg li nga xam ne moom mooy dëgg Eh, ay madhab di ay ngir yoo xam ne ak i kuréel yu reer yoo xam ne si kuréelu bidaakat yi lañu bokk si ay bidaa la si diine wuuteeg li nga xam ne mooy tegtal yi ñëw si alquran ak sunna wuuteeg li nga xam ne mooy deminu ahlu sunna wal jamaa ñi nga xam ne ñoo ngi tënku si tegtali alquran yi tënku si li nga xam ne mooy eh, tegtali eh, as sunna ndax ñoom ñii moo xam xawaarij la la wala mu'tazila yi eh, fa ñu juumee mooy dañuy jël yenn tegtal ya yeneen yi jël tegtal yi nga xam ne moom la ñuy tuddee an-nusus al di tëkku yi yàlla subhanahu wa ta'ala di tëkku ñu jël tegtal di ko eh, jëfandikoo waaye bàyyi yeneeni yi lu si ni yàlla subhanahu wa ta'ala ba mu waxee si alquran inna allaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaxfiru ma duna dalika liman yashaa aaya boobee ñoom jëluñu ko yàlla bam ne du jéggal ki koy bokkaale waaye dina jéggal lu weesu bokkaale maanaam waris bokkaale yàlla dina jéggal boroomam maanaam mboolem bakkaar yi yudul bokkaale kon bakkaar yu mag yi dina si dugg naan sàngara njaaloo yàlla subhanahu wa dina ko jéggal borom aaya boobee lan moo tax jëluñu ko waaye ñi dem tënku ci aaya bu mel ni wa man ya'si llaha wa rasulahu fa inna lahu naara jahannama xaalidan fiha xaalidina fiha abada wa man ya'si llaha wa rasulahu fa inna lahu naara jahannama xaalidina fiha abada yàlla subhanahu wa taala wax ne képp ku mooy yàlla akub yenenteem sallallahu alayhi wa sallam na yëg ne E, sawaras jahannama ñeel na ko sawara soo xam ne daf fay sax dàkk ñu jël aaya boobee ne képp ku mooy yàlla rek sawara ñeel na la te danga fay sax dàkk te loolee di njuumte lu rëy mooy jël li liy feeñ li ñu tuddee zaahiral kitaab e, wala zaahir dalil demee moom bàyyi yeneen tegtal ya bàyyi yeneen tegtal yi si alquran ak sunna ñuy weddi nit ñi yàlla subhanahu wa taala am yeneeni aaya ak yeneen i xadiis yu leer naññ yoo xam ne dafay juyoog loole ñu wax waliyaadu billah loola di ak njuumte kon daal si gàttal loolee moo di ngiru di yoonu ahlu sunna wal jamaa ne al dafa ami ponk ami ami pàcc ponk yi dinañ ci ñëw benn bu ci nekk ak ay tegtalam ñu xam ne daal ponk mooy li nga xam ne mënta ñàkk nit ki taxaw weddi benn ponk si ponk ngëm yàlla kookee moom dafay génn ci diine ki weddi benn ponk moo xam ponk gëm gi muy gëm yàlla subhanahu wa taala wala gëm gi muy gëm mboolem yi téere yi wàcce yàlla wàcc ci kaw kaw suuf wala yenente yi yàlla yónni mboolem yenente yi gëm gi mu leen gëm gëm gi muy gëm dekki ne yàlla dina dekkil jaami gëm gi muy gëm li nga xam ne mooy malaaka yi gëm gi muy gëm li nga xam ne moom mooy dogal mboolem ponk yi ngëm yàlla yi benn boo ci weddi waliyaas billah da ngay génn ci diine même yenente yàlla yónni yëpp boo ci wat weddi wan kenn weddi nga mboolem yenente yi comme ni ko yàlla subhanahu wa waxee ba tax na loolee moo di ponk yi ama pàcc yi nag moom pàcc yi comme ni leen ko waxee yenente bi sallallahu alayhi wax ne dem na fa si juróom benn fukki pàcc ak nàngam juróom-ñaar fukki pàcc ak nàngam lii di ngëm yàlla pàcc yooyee dafay séddalikoo am na si pàcc yoo xam ne eh, eh, kamal al waajib la maanaam ay wareef la si ngëm yàlla dafay mottali ngëm yàlla ay wareef la faw nit ki indi ko ngir ngëm yàlla am mat waaye si am na si kamal al si jëf yi yoo xam ne lu ñu sopp la jox nañ si niral sànq ki nga xam ne dafa gis luy lore si kaw yoon jëf jooju mu koy jëf wax nañ la si ngëm yàlla la bokk dindi luy lore si kaw yoon si ngëm yàlla la bokk waaye est dañ naan eh, nit ki deful loolu génn si diine waliyaadu billah déedéet si kamalul mustahab mbir yi nga xam ne dañoo so dañ koo sopp te muy matal li nga xam ne ngëm yàlla loole si la bokk kon eh, teqale boobee faw nit ki ràññee ko ci nga xam ne mooy ngëm yàlla kadalika ci définition bi wax nañ ci ne ngëm yàlla nekk na loo xam ne dafay yokk di wàññeeku dafay yokk di wàññeeku te loole ay tegtal yu baree baree bari ñëw na ci alquran sunna di ko tegtale bokk na si tegtal yooyee yàlla subhanahu wa taala waxoon na ne innama almuminuuna alladina ida dukira allahu wajilat qulubuhum وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ñi gëm yàlla sa dëgg-dëgg mooy ñi nga xam ne fu ñu tuddee yàlla subhanahu wa seen xol ya dañuy tiit bu ñuy jàng aaya yi ci ñoom aaya yàlla yi aaya yàlla yooyee dañ leen di dolli ngëm yàlla zaadathum imaana aaya yooyee dañ leen di dolli ngëm yàlla kon alxuraan dafay dolli ngëm yàlla aay boobu lañ ciy tegtale ne ngëm yàlla nekk na luy dolleeku dafay yokku kadalika la yàlla subhanahu wa wax wa ma unzilat suratun fa man yaqulu ayukum zaadathu hadihi imaana fa amma alladina aamanu fa zaadathum imaanan wa hum yastabshiruun ci tawba yàlla subhanahu wa aw saar wàccee ci ñoom am na si ñoom ñuy wax ñeneen ñi waaw saar wi kan si yéen la dolli ak ngëm yàlla waaye ñi nga xam ne ñu ngëm yàlla lañ saar woowee da leen di dolli ak ngëm saar woowee da leen di dol loole kon di lu leer ni ngëm yàlla dafay yokk di dolleeku wàcc gi yàlla subhanahu wa taala di wàcc alxuraan ak déglu giñ koy déglu di ko settantal loole dafay yokku li nga xam ne moom mooy ak ngëm yàlla amma euh, tegtal yi wane ne ngëm yàlla dafay wàññeeku kadalika euh, ni ko borom xam-xam yi waxee alimaamu ahmad ak ñeneen ak ñeneen lépp luy dolleeku rek dafay wàññeeku lépp luy yokku rek dafay wàññeeku tante am na ay tegtal yu yi wane kadalika dafay wàññeeku bokk na si tegtal yooyee euh, xadis bu wër ne yàlla subhanahu wa taala yowma dafay wax ni axrijuu min annaari man kaana fi qalbihi mithqaala habbatin min khardalin min iman alimaamul Buxaari ak alimaamul Buxaari solo na ko si xadis abi Saïd yàlla subhaanahu wa taala dafay wax ëllëg yowm alqiyaama génne leen si sawara képp koo xam ne xolam ba amoon na lu toll ni atome pepp maanaam ba gën a tuuti si ngëm yàlla Cheikh Saleh dafay wax ne fadalla ala anna al imaana yanqus xatta yakuna ala wazni xabba min xardal fi l qalb loolu dafay tegtale ne kon ngëm yàlla dees na wàññeeku di wàññeeku ba dara dara dootu fa des lu lu dul lu toll ni pepp atom ci xolu jàmba kadalika yàlla subhanahu wa taala waxoon na ne hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman acheikh saalih ne dalla ala anna al imaana yanqusu xatta yakuna aqraba ila al kufri aaya boobu dafay tegtale ne ngëm yàlla dina wàññeeku ba boroomam mujj gën a jege ak kéefër kë ngëm yàlla subhanahu wa taala kadalika xadis ba yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax ne man raa minkum munkaran falyugayirhu bi yedih fa in lam yastati fa bi lisaanih fa in lam yastati fa bi qalbih wa dalika adafu al iman xadis boo xam ne al imam muslim rahimahullahu taala soloo na ko ci xadis abi said yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne képp ku gis ci yéen naka sudul noona muy munkar ci diine na ko dindi si dooleem bu fekkee am na kàttan ga si dindi ko bu fekkee mënul loola na ko wax ci làmmiñam tere ko ci làmmiñam bu fekkee mënul loola na ko bañ si xolam te loolee nee na mooy li gën a faible ci ngëm yàlla adaful iman te loole mooy li gën a faible li gën a néew si ngëm yàlla loole it kon dafay tegtale ne ngëm yàlla dina faible si xolu jaam bi di faible di faible ba yegg ci eh, martaba yooyee nga xam ne dafay gis naka sudut noona muy munkarte xolam du ko bañ waliyadu billah kon mbokki jullit yi loole yëpp ay tegtal la ci euh, définition bi nga xam ne boroom xam-xam yi définir nañ ko lii di ngëm yàlla te mooy définition ahlu sunna wal naa al mbir la moo xam ne xol baa koy fas làmmiñ bi di ko wax cër yi di ko jëf muy loo xam ne dafay yokk di wàññeeku loole mooy définition bi wér ci ngëm yàlla waaye ñu xam ne dafa ami ponk ami pàcc si bind yi di ñëw insha allahu taala dinañ taxaw si ay ponkam di ponk ponki ngëm yàlla comme nañ ko taxawee woon si ponki lislaam yi ak yi ay tegtalam si alquran ak sunna wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa